mais mbay mais man ma mais man mbay mii ma gis nii daa mel ni kuy doog a jóge entraînement mbay yaa ngi da ngaa jóge entraînement wala lu xew entraînement laa jóge ma maa ngi nii léegi laa jóge géej waaw tëral di waaj bëgg combat rek fi mu fan nag mbër mu gàddu coow nga waaw non bayre bee bëri rek mbër yi fi mu ne dama leen a ëpp bayre seetaan nga arena hebdo bi ma bi ma def fan yii ak booy fay ak fit dabat leen sikki lañ la wax tontu lañ la tontu seetaan naa ko mais ñooñ duñu ay mbër booy fay mooy lool booy fay fekk fils de gis nga ni mu toll. toll ni tafaatin. waaw xool ko fi mu ne ci lam man mooy lool te man booy bu ndaw laa. kon loo bëgg wax ci loolu maanaam daa defut li ko war wala. defut li ko war ñi mu bërit kenn xamatu leen ranaal di ñooy nag man kera mbër yi mu lim sax est-ce que deewuñu. <laughs> bab sa ñooñu du keneen ki di ma tëkk kook daa ma sa bëre. fils de Balla Sik la ma sa bëre. ah na bu ñu leen tëjee ci roq nga réccu. loolu weddiwu ma ma mën na man mais mas naa bëre ki toj mbapat yi de. waaye mbapat day dara. daan tey ñu daan la suba. loo lan. mais yow sa diggante mbëri lan la. mbëri simple yi daal jàmm laa leen di ñaanal di ñaanal sama bopp jàmm mais man bëréew maak ak yéen. seeti leen yéen ñi ngeen di daanante mbapat yéen ñi nga xam ne da ngeen di jàpp daanante bëri leen seen biir. mais booy fay booy fay booy fay moom nee na bés bu ñu leen maanaam bu ngeen bëree da nga ko wan booy fay boo ko nee jàq xam ne tàppet la foo gis mbër muy xulli bët ab ragal la loolu maa la ko wax mbër muy wax ni ni nga jibbat ab ragal la. mooy du dara. mbapat xam nga amul dóor amul dara mbapat moom yomb na mais pir kuy tàkk booy fay booy dóor muy daw ab ragal la fii la ko njaaxum épirkil buub ko ne ko keek ndaama tëngéej gi ci nii la ko def xar. Ronaldo ginnaawam booy fay day dara ah ñooñ du ay mbër. ñaar ku njëkk a dugg ci lamb moom ma njëkk a dugg ci lamb fuuf man na maa xaaj sama kase ñaari yoon fay ko leen li yaa gën a seer kase lambo avec frappe. day benn moom de xanaa li ko yàlla dimbali muy jël nii wala ñu daan ko mu am reliquat cent mille wala soixante quinze kese bab si ñooñu yoruñu buñ bëreewut duñ lekk. boo bëreewut est-ce que di nga lan man damaa faale bëre. Aziz Ndiaye al amin sama papa sama xarit. Bada jon ñooñu dañuy caaxaan. Daouda <laughs> ñooñ du caaxaan. gis naa la ak benn 4-4 Ford sax. Ford baa nga kër ga ma baase nag wax ji laay bañ nii rek. gaa yi yëgagul li xew. nañ toog Touba nga ko doon dawal. déggoo ma Touba ak laa ko doon dawal man. màggal gi ma gis naa la ngay jëndi xar ak ay bëy. lépp laa jënd Aziz un million la ma jox ne ma defal ci màggal gi. waaw. million ne ma defal ci màggal gi bu ko wax kenn bëgguma ko woon a wax sax mais xam nga rek mooy loolu. kooku kenn du moom al amin. yàlla na jàmmam yàgg. mu ngi may mu ngi may Europe nag. waaw. mais sa digganteeg euh, Zarko dañ koy dox. waaw gaa yaa ngi ci. a ngi ci. Zarko du dis ci yow. Zarko day dara. Grand Yoff amul mbër mu ma mën a daan. Zarko dëgër na fit de mbay. Grand Yoff amuñu mbër mu ma mën a daan. Babsu Kala. ah mbay. Grand Yoff amul mbër mu ma mën a. Grand Yoff mu ne. mobile la ngi Grand Ndandi Fall. xale bële. mobile daa jël avance su daw. xam nga loolu kenn mënu ci dara ku jël avance jàmbur daw moom kenn du wax say wax ñun dañuy wax ak ñi fi ne est-ce ñoom sax même est-ce que soxoruñ parce que buñ ñëwee avance yi daw dem États-Unis gars yi tëj frontières yi ñun duñ demati nañ bàyyi li ñuy def tey ñëw mbër yi tukki li ñuy def soxor la fi mu ne nii maa ngi nii bëgg a dem États-Unis ambassade yëpp ñu tëj ko. mais Sarko bari na fit de. Sarko du dara barke alxuraan bu ñu dajeen ci Blaise Diagne bi mbuus yi fi yëpp dina ko for. moom Sarko kon da ngaa bu ngeen bëree noon lay demee. yenn ba taxaw dóor ci suuf. mbay mbaa doo juum ci Zarko. masuma juum ci kenn xale laa dañ maa yónni yàkkamti ma ku ñime dañ laa dee nag Babs. fi kon pour Zarko. déggoo ma Aziz Ndiaye xanaa gisoo ko dix combats dix victoire yi xanaa yëgoo ko bërki démb waaw <laughs> loolu la ma dee de. te lu dix victoire yu leer. lool leer na nañ. léegi ab marabu la. non pas marabu mais yàlla sunu borom booy def teraanga day dem ba mu dugal sa bopp xam-xam ngay dimbalee. kon man war naa koo seetiwaat. boo yeboo seeti ko de moo ne ci dëkk bi de man fi mu ne nii ku tooñ Aziz Ndakaaru laay wër ba ma xeex ak yow mais mënu ma koo gis koo wax ñu ne lu baax lay def ci dëkk bi mooy lool affaire bi doyul waaram. dara doyul waar bab sa gars yi fii mooy loolu ñoo bëgg a mitil affaire yi rek dëkk bi daal na ñaanal al amin yàlla defal ko jàmm mu ngi dimbalee de bu nu amoon cinquante yu mel ni moom wala vingt rek léegi réew mi changé kon dootuñu lijjanti Macky Sall. mbër yoo am na nee nañ bàyyi nee nañ bàyyi day wax rek parce que moom ñoom dañuy liggéey di am xaal mais moom day bëre tay suba du bëree des fois sax day ñaan xaalis affaire yu mel noonu quoi am na ñu lay wax lool ma su ñoo gis nag ma naan diw may ma te duñ te duñ ko gis ci àdduna nit moom foo ko rawee day xajamal teg ci sa der lu ñaaw man mbër yii duma seen moroom maa leen gën a aju gën leen a ne fu baax gën leen taxaw position bu baax. nañ ma ñaanal jàmm rek bàyyi leen nag ku ne làngal ak sa waay la wax loolu lañ wax ku ne sa waay. ko. ku ne làngal ak sa man. Aziz bu neexee bu méttee. bu neexee bu méttee man Aziz say sama waay. moom nga kese. barke Serigne Bamba. alamin mu ngi fi directeur bu mag bi fa laa jógee dimanche. waaw da doon toxu ci këram gu bees gi maag Lamine mii ñoo fa newandoo woon. al amin palais la tabax na fi teewaawoon palais. palais bee Macky Sall mën na toxu tey. waaw palais. 3000 hectares. la illaa déggal lool. 1000 mètres carrés wala 3000 hectares. 1000 mètres carrés. loolu du caaxaan. loolu la tabax Tiwaawoon. loolu la tabax Tiwaawoon. te nee na def na yeneen ak yeneen yu mu war a defar foofu. te nee na bëgg na ko fépp it. nee na bëgg na bu mel noon Touba sax de wax na ma ko de. nee na bëgg na bu mel noon Touba bu paree dem Kaolack def fa ben Aziz nitu nit ñi la ku yebu ñaana ko jàmm man ku ko tooñ laay wër Ndakaaru ba ma xeex yow mais mënu ma koo gis. bëggee xeex di nga xeex ndax Ama Sarko boo ko lekkee daa xeex ba dugg bu avocat. Sarko moom du ma ak moom Sarko dama ko naan nepp jàpp ko yenn dóor suuf dem sama yoon mag la ñoom ñëpp dañoo am njaboot njaboota leen sonal. fi digganteeg Marley. Marley baax na champion la grand frère la ko ku ma ko joxit ma jël ko de waaw. waaw. Mhm. kon bay waaw kon day. naa pour bëreeg moom grand la bu baax bëri na ñu ngi koy féliciter jàmbaar la wane na jàmbaar ba am ndam. waaw ñu bëri amuñu woon yaakaar ne dina daan mais yàlla sunu borom da jàppale na ko ba mu am ndam waaw di ñaanal ñëpp jàmm BM mi dafa na ko gaa yi jël ak leer 2 mi na leen gaa yi jël. Ikri Bada Jon ay champion fa ne ay ndaanaan nañ leen jël ñu duma leen daan leen lamb ji bawal la jëm. roi de arènes barke Serigne Salim Mbacke bu ko fa tafaatin yóbbuwut biñ naa ci Serigne Touba dinaa ko fa yóbbu wala kii yóbbu ko wala keneen yóbbu ko. ay wallaay taala roi dina am bawal incha allah nga parcelle dina la. bu yëngu nag ñu ko yóbbu. doo ko yor kooku neex ta defante. bu ñu yëngu ñu koy yóbbu jaajëf Babs.